hawadani laahu min asheytaani waxadi li mën a fexal awtan waaw bu fekkee fii lañu koy coowee rekk baax na ndax innal hasanaati yuzhibna sayyi'aati ku toog fii di wax leneen la ngay wax forme la waaye yaa ngi ci biir fond ndax fii dañu fi doon yëkkati léegi waxi ku tedd gi te moo ne lii min al-lawhil mahfuzi abada moo ne iza katabtu tazza arshullahi wa sabbahat malaikul ilahi bu ñu ne bismil islaami almurid yaa ngi ci biir xalifa baa ngi ci biir tafsiran booy gàttal bone lislaam rek nee nga sëriñ Muntaqa boo nee sëriñ Muntaqa nee nga Cheikh Mouhamadul Bachir kurus la per boo tee tee nga kurus gi yëpp bu fekkee da ngay gàttal ginnaaw bu ñu leen ziyaare sëriñ Muntaqa ak njabootu ku tedd ki yëpp ma ne njadu ba wattu ku tedd ki yëpp Cheikh Mouhamadoul Bachir ca daaru mi ngi ci biir njaboot gi genn la kenn ki kenn la mooy ki tudde fii tuuba teni li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin la wax aw hadiyaati suñu borom jox ko lépp ni mu gën a léppe ñépp tax mu yéwe ni ci ni mu ci yéwéne di defal ñépp lépp ba ko yonent bi tànnalee li mu koy tànnal fii ci àdduna itam noonu mu waxe ne iblisu farra wa aghastu ma nafa min hazihi dunya wa durahan dafa alayhi salaatu wasalaam moo ko tànnal li mu ko tànnal ci malaka ni dunia wa oxra samadu ci tey ak ëllëg ba mu ko ko tànnalee itam daf ko tasaare ci bindeef yépp fas yi ak xar yi sax am nañ ci seen wàll ak ginaar yi dafa am màggalu daaru mooti goo xamante ne bii ma nekk sukóor yi ndax doomu aadama bu nekk ci sa dund day am ñetti étape yoo xam ne étape bu ci ne mën nga cee dem mën nga cee bañ a dem ma toll ci étape boo xamante ne bi am naa yéeg yëgoog ni étape bii war naa cee mën a dem toxoo fii dem barzaq ma ne kon naa wut at yu wat watti samay at fekk booba may toll ci ñeent fukk mbaa yu manqué ay weer doomi borom daaru moti yëpp ku nekk ma joxloo nag sët yu mag yëpp ku nekk ma joxloo nag ba mu ëpp samay at Ababacar Diop mi ci sama gannaaw te ñu koy wax wax saddeex te ma koy woye amin moom moo gént nag yooya seen kilifa jiite leen ni ko nun sunu moroom yépp nu ñee ndax bi ku baax ki bëggee waree dem te yabal nu ñu demal ko ne ko waaw ne ko nag wu mu sa dee ci dëj mbaa ci gàmm mbaa ci màggal fi ñu toll da nga noo ñëwee di yaa ko gént fi ñu toll nag ku tedd ki moo bëgg ma yàgg fi moo tax ñaanu Cheikh Mouhamadul Bachir mii donte ñeneen a ngi koy ñaan waaye xawma yéen a ngi ko doon déglu bu baax xawma waaw ndax déglu bu amee itam déggin dafa am mm. mu doon ki mu doon tudd ni mu tudd xam li mu xam naa alim la man damay wax ni maddaliyel xaqul mu binul xaq wa bil xiyaaral ulama ar tàmbaleel ci ñoom booy wuti ay savant tàmbaleel ci ñii bul génn ku tedd ki bu dem gis ab shérif fële rek wala am naar fële ca son Saudiya nga fay dem di fa seeti savant savant yi xool ko jële ko fii ci Mbàkke ak Buso yeneen sant yi ci des yëpp nga xam ni ku tedd ki li mu def ci Mbàkke def ko ci Buso la ko def ci santam yëpp jann njaay faal gajaga jóob jonn jaxumpa sant yëpp la ko def sant bu ci amuk xaaf feesala na la ko bu ci amuk miim def na ko ca bu ci amuk waaw def na ko ca ak a yomb comprendre xooleen xoola portable bi xoola puce bi génneel léegi def ci beneen portable ndax du dox li muy def ci mbàkke moom la def ci sant yépp da ngay gis ku yor sant wi fii da gis ku yoru sant mbàkke fii gis jaxumpa fee la mu def ci xaafu jaxumpa ak miim ga du nekk ci boroom sant wii te mi ngeen mbàkke ji dëgg la wala du dëgg gis ngeen maam mi sama doom ju baax la néew ma ko woon maa ngi fii ñëw waaye léegi laa ko gis mu dugg nuyoo maam mu bu sëriñ Cheikh Assou bu ko defee soppe bu nekk boo ñëwul it ñëw nga ndax nit xol ak xel fa xol nekk xel nekk fa jëmm nga fa ñoo fa teewal jëmm li Cheikh Mouhamadul Bachir wax rek man appareil la télécommande bi ku tedd ki dafa am ku ko jox te kooke kenn du ko gis mu naan ma nii maa ko wax Cheikh Gànn léegi ni ko dem kër kenn am fa ñetti waxtu mbaa ñeent ba ma ko gëjee def booba yow fukki at nga am ndax man na doon sama taaw li ma ko mage dafa bari man boo ma gisee nii may ndaw ndawlu gisoo ñoom ahma ñi gisoo xale yi sama doom yi ñooma mag mission bi ma ko tedd kiy waaj a jox la gis ngeen fi ñu toll nii xam nga xadd fakka kabala ji wax naa leen ko xadd ba sa faddala fa durru walla wana fu jaay waaw kon kay lii des ci noonu la dese desewul ci moom nanu xool ndem humuril insaan ya amuru bi tadrij nanu xool étape par étape étape bu nekk lan moo ca war a xew lan lan war a def ndax fii nu toll nii est-ce que dina war a toog nii rek di nga maral wala ku tedd ki ba mu ñu liberee yàgg na ba mu ñu libéré yàgg na aha danoo defe ne daal dañu naan rek Serigne Mountakha mooy xalifa bi kon dara waruñu dañ naan nemm rek te moom mu nekk ca la mu war a nekk nanuy seetantal nanu xool li war a def nun ñëpp ku tedd ki danoo boole nun ñëpp def nu ay murit bi mu nu boolee def nu ay morit ba noppi nanu boolewaat sunu bopp ci jamono bu nekk fi mu toll nii dafa am loo xam ne dañu cee war a ànd nun ñëpp ñi dëkk Touba ndax fu murit murit bu am ful la foo nekk Touba la ci morit bu am ful da ngeen a defe ni fi ñu toll nii lii xew ku dee rek ñu ne nañ ko yóbbu Touba da ngeen a defe ni loolu day continuer am dañoo bëgg Touba gépp nekkee armel déedéet jamono day dox faw ñu conscientiser nit ñi murit fu mu nekk Touba la waaye ku defe ni sa te Touba am na fi ay malaayika yoo xam ne dañuy rejeté néew de dañ koy delloo dama bëgg rek ñu xam loolu Touba am na néew yoo xam ne bu ñu leen fi indee bu guddee dañu leen fi jëlee yóbbu leen fañ leen war a duma ndax fii kenn du fa duma kenn Touba gi waaye ba ñu naan ca démb Touba néew bu fa dugg raw sàcc bu fa dugg raw ah <laughs> jamono yi am na ñuy bàkk wàll yi fi jàmbur ñu ñuy jàpp de hmm? déggu leen ko fi faw rek ñu delloo si sunuy xel tey bàyyi xel nag dee day bettee dañu koy bàyyi xel comme fii du dëgg on est que des passagers dañu fee jaar rek di dem dara du fi dara Cheikh Mouhamadul Bachir mi toog doon wax léegi ay waxam ñi ko enregistré nañ koy dégluwaat bu baax a baax c'est très important gis nga ku tedd ki bala la nee nacc doo rëcc bu la jàppee doo rëcc ndax moo la jàpp du jàpp luy rëcc man nag ci la ma def sanq dama ni leen woon bu tàkkusaan gi jotee ni wax sëriñ Abdou ak Serigne Ousmane ngeen dem julli ndax man tisbaar gi dama cee sonnoon lool ci julli gi waaye xoole ni la ko tedd kii def mujj naa julli Cheikh gan ah xam nga loo amutu fi tam jërul jéem naan duma ma julli tàkkusaan ak damay bàyyi ba dem kër gaak te aw ma fi tam kët <laughs> looloo ma dal léegi léegi léegi waaye comme julli ji man comme man ni may jullee su ma jullee ba noppi dama naan ko mu ngi noonu jëlal bu jagee jëlal bu jagul jagalal jël waaw borom daaru moo ëtti dafa nekk koso di taxaw liggéey bi jëm ci ku tedd ki naar bi koy noddal noddu tisbaar ñëwul mu noddu tàkkusaan ñëwul mu takkaraar ko mu noddaat baa mu nodd gi defe ne déggu ko bi mu noddee timis mu ñëw ni ko tàkkusaan gi danga ngaa defe noonu dégguma ko mu ne ko li nga sori woon ci tool ya tax mu ne ko dégg naa ko waaye li may amee ci liggéey bii jëm ci ku tedd ki dafa gën a li may amee ci julli gi loolu kat maam yi ñoo ko waxoon kon defe naa ne bu ma jëlee bu ma jullee jox boroom waaw wax nañu li ci yàlla digle ci julli ak koor ak yépp lu ci nekk wax nañu li ci yàlla digle ci aw yiw waaw moom mi ne nag waa jaxani bil bishri kulla layli maha nahaarihi wa ataaba nayli delloo tee ni waa jaxani bil xayri yawmi wa kulla shahrin wa aqudu qawmi guddee fi nekk ak bëccëg li baax ci guddi gi mi ngi moom li baax ci bëccëg bi mi ngi moom looloo tax muy guider peuple am waaw waaw peuple bi kon lu ñuy ngàmmaaral kenn wërta jàmbat senegal kenn waru fee jàmbat du góor du jógeen du mag du ndaw waaw ndaw waxe naa nu ne lii des ci ñun la dese nanu àndandoo doon wenn say bu nu àndee doon wenn sëy ku nuy dam hmm? ah, nanu àndandoo doon wenn sëy waaw dafa am nitug yàlla koo xamante ni bii dafa ma netti gént ni dafa gént ku tedd ki wax ma ni ma waa ma ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga taxawal ma ci ñi bokk ci man ba noppi di jaay seen ngor tey tey jaay seen ngor ngir àdduna rêve la mais grave dama bëgg nga seetal ma ñii bokk ci man ba noppi te fas yéene jaay seen ngor ngir àdduna loolu de kii bokk ci moom kii new ma kenn ci la nag dama ne waaye maa ne kii bokk ci néew ma kenn ci la bokk nag waxuma kenn wallahi sëriñ réew mi dina neex réew mi dina neex dala leen seen xel bu kenn jàmbat li ko li shay in ajal te yàggatul réew mi dina neex waaw jéng yëpp lañuy teg xam nga jéng yi doonul jéng yu ñuy gis jéng yi doonul lu ñuy gis ni ñuy jéngee aw fas walla yooyu déedéet conscientement la jéng jéng yi ci mentalité yi la nañu fexee yee nit ñi ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk te teylu ko rek étape par étape waaw ndax am anaasu muxtalifuun yàlla def na bind wootale nu ku nekk sa sensibilité yàlla bind ñu ci lompañ wa xuliqal insaanu daifa bu nu ko teyloo rek di conscientiser nit ñi ndànk ndànk ndànk ndànk bu nu ko defee balay yàgg fii ak ñaari at ñetti at ndax dafa am loo xamante ni bi mooy mën a tax développement bi gaaw développement bi pour mu gaaw du càggee naa gis nañ fi pétrole ak gaz rek wala yooyu déedéet développement bi pour mu gaaw ne nit ñi mànkoo ci même objectif rek waaw te njëkk ko ci suuf si ak ndox mi ci mbay mi bu nu ko defee rek loolu moo tax li tax bëgguma wax léegi ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Ibrahim mooy tey la ñeent fukki guddi Baye Abbas yi rahimahullah te Serigne Bassirou waxagul Serigne Bassirou Anta Niang donte man la wax ni naa taxawal kuréel boo xam ne mooy saytu xilaafa gi itam ama droit amaguma droit wax ci te Cheikh Mouhamadul Bachir Abdou Khoudous mi nga xam ne mooy naatiqul kalaamam itam waxloogu ko ci publiquement kon duma ci mën a sori waaye bu leen dara bett bu leen dara bett ndax daaru Muxti moo war a taxaw Tuuba danoo war a delloo si démb danoo bëgg a delloo si démb waaw ci taxawaayu Cheikh Ibrahima Fati ci wetu ku tedd ki e, loolu moo tax bu ñu taxawalee lii ba ca kanam itam dinañ amaal leer lu ñuy tuddee majlisu shura boo xamante ni bii dañuy jël fii ay savant ay kàngam waaw bokk kook ñoom waaw ndax euh, daaru daal moo war a taxawu Touba beneen organisation bu bees boo xam ne day améliorer xasanaat yi fi nekkoon yooyu la ñuy waaj a taxawal mu tombeek nag xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Bachir Anta ibnu Cheikh Ibrahim loolu suggestion la boo xamante ni bii mënta mënul woon ñàkk ma junj leen ko waaye bu ñu eggee ci sëñ bi joxe ndigal ba wax li muy wax ba noppi bu boobaa dina gën a yaatu ci ñëpp pour ñëpp comprendre ko bu ko defee li ma leen waxoon rek li ma booleeg Cheikh Gana mii mooy li may boole ñëpp mooy li may booleeg ñëpp ñaare nag tool bu yaatoo day am ñetti niveau suuf yu bokkul dafa am lu ñu tuddee joor xiibon yeeg ñi mbaa ñi bëgg a gaaw a wàcc mën nañ faa féete am lu ñuy tudde deg joor waaw moom jafewul waaye yombul itam waaye dafa am lu ñuy tudde sonjaan sonjaan nag boo ko déggee outil yee ñu fay gën a soxla bokk na ca daba bokk na ca sémmiñ waaw ñu nag ci sonjaan bi lañu nekk moo tax daba ak sémmiñ dañu koy soxla waaw dañu koy soxla góor yor ko jigéen yor ko daba ak sémmiñ waxin la ay wolof la yoo xam ni ku ci dëkk mag rek boo ko laajee dana la ko teqantal waaw ba nga xam li may wax eh, lenn képp ndax itam suñu borom moo ni ñaan leen ma ma may leen naam woo leen ma ma wuy leen waaye ñun jarul nuy sori ñun jarul nuy sori ndax ku tedd ki ku tedd ki moom lim bëggoon lépp daf koo am léegi kay nan xool nan leen ci wute déedéet doo du carte doo perte xam nga boo fi bàyyeeku tedd ki wuti yàlla ni danga koy ñaan bul yàkkamte xamoo kañ la lay may ndax gis ngeen ñaanu yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne moo nu tuddee ay jullit moo nu tuddee ay muslimun ñaanam nga yàgg na lool di soog a nangu ay junniy junniy junniy at kii nag waab tali min ko sulan faaxa masalati falaka shukriya yaa wahaabu yàllaahu Hmm? li xudduta asmaana laj yaaman lahu umri hmm? maanaa la ma waxoon léegi ci guddi ak bëccëg yi rek waaw madda illa ya nafan fil kaw ne ni bi jaax man wuli da fil it nay ni tey la altene hmm? tey la altene kon bishra yow mil it nay ni jooju nun nanu xuus si biir bisira yow mi itnay nii yow mi ga am na waaw am na miim te lu nekk nga ca waaw te moo ne madda ilaya nafa fil kaw nee nii bi jaahi man wuli de fil itnay nii moo ko wax bisu altine bii kon bés bi ay temps la yu bokkul fi mu toll ñu ngi ci julli nañ tàkkusaan ba noppi te noddu gu ñu timis lu ne la fi malaaka yi di joxe ci wiiw mais yu yëpp mi ngi ci moom loolu la wuti wuñu ko fenn néewuñu dañ naan jëm ne law naan yàlla nangam ak i nangam defuñu loolu fii la ñuy yem leer na nañ a wutin rek la am wutin wi nag bu fekkee caabi la jërëjëf Serigne Touba ak dara mooy caabi ji gën a kawe ndax moo ni yàlla chakarani hinda xuyóori wala hinda jamihi jundihi mus xasadu ziyaarati min hindihi night and day malayka yi di ñëw di siyaare ka dellu li nu soxla lépp mu ngi ci moom wutiin wi imaanan wa islaaman wa ihsaanan du dara lu dul al adab waaw wute si ko ci moom ay teggin rek ak moomu ak bu la nee yaa ngi ca kaw mbala ñu lay jaay naan la yaa ngi ca kawet jàppale ne yaa ngi ci suufan ah. kaw genn la ka fa nekk kenn la gis ngeen sëñ Abdou mbàkki mi lu ne laaj ci daj pour mu nangoo toog ci kaw te al adab képp ko waral hmm? lu ne laaj ci daj pour mu nangoo toog ci kaw xoolal Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne bi muy wax tuuti ma wàcc damaa xam ne bi ma wàccee sëñ Abdou wàcc loolu la genn kaw a am kenn fa ne ci ne jutta bi mufradin lana faaxal jumal xutta lana mux jëla jaysin wa amal bokkul fenn kenn du ko limaale il est distingué ah mi ngi sunu kanam ba ma jóg rek ma ak Cheikh Gànna ak Hakaza sàmb ba ñu tourne tàmb tourné suñu ba ñu tàmbali suñu tournée nationale ba dajal réew mi ñu xool ban atmosphère mooy xew dinañ xam Serigne Touba moom réew ñi wala déet wasalaam. waxut lii rispan yaa rasaaxu yaa allah fatatali kulla baas bin kunta zaati'an لأوليائك يا الفتاة يا الله